ñii jël cinquante hectares kenn koo xamante ne am na lu ëpp deux cent hectares ci benn doomu aadama te dara mayu ko ko lu dul dafa jege nguur kese. au même moment ñu jël daanaka lu trois hectares lañ séddale ville ville de Thiès maanaam trois hectares mooy cent vingt parcelles yo xamante ne moom la ville de Thiès joxe ay citoyens. nga xool ci wet wa ñuy jox ay nit cent cent hectares deux cent hectares trois cent hectares wala dix hectares sax wala sax benn hectare wala sax quarante parcelles pour kenn koo xamante ne xam na ne moom lay waxal ni ma bëggoon sénégalais yi xam ne li tax ñu arrêté li ñuy def ci site yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay acte rek yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay baux wala ñu am ay titre foncier pour ne état yaa ma jox léegi mettre ñu lu ñuy wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante ne du ñu am nu ñu ko def lol motax ñu arrêté lu ñu arrêté. police à Thiès terrain guñu ko par mètre carré par hectare lañ ko dakk te ñiñ ko jox nekkul kenn kudul ay politiciens ku melni Idrissa Seck moom information yu bés bi joxe nee na yor lu toll si treize hectares foofu kii di Pape Diop nag yor na lu toll si dix hectares. Allons Odia, 10 hectares. Yusundu, patron du groupe de presse. GFM, Yorno 6 5 hectares. Kide Antoine Domnak, ancien ministre de l'Intérieur. Yorno les 5 hectares. Augustin Etin, Yorno Mom 6 5 hectares. Jean-Paul Diaz, Bayou Kiri Batilumi Diaz. Yorno aussi 5 hectares kii di Cheikh Oumar Anne yor na cinq Ning, député APR kii tëj lu woon ñaari député Ifuri, fuir yi moom yor na lu toll si hectare Abdou député Beno Bokk Yaakaar yor na lu toll si benn hectare am aussi Yenen Utilité, yi am ay hectares waaye lii nii yëpp daf ñoo war a pousser ñu poser wu question ñii ana nan leen dëx ba bu na jot si terrain nit yor lu toll si ay hectares te dëkk boobu dañ ko fas pour mu mën a accueillir ville bu bees mu doon lu doy waar nag yu leen laaj seen xalaat à travers les commentaires bu leen fàttee abonné ngeen activer collage B. sur ce ñu ngi waxante ba sur 2K Dakar